mbokk yi teewlu ci Louga TV ñi ngi am mbëgte tey dellusi ak yéen ci ab rendez bu bees ñu duppe ko gisiin doomu réew bu ne war na mën a am xalaat ci ni réew mi ak dëkk bi di doxe war na am xalaat ci ni mbir yi tëdde ak ci tolluwaayu jamono war na am xalaat ci li ñuy xaar ak ci fi jublu fan la loolu lépp nag ngir gën a ñoŋal la république muy la chose commune walla li ñëpp bokk loolu mooy cëslaayu gisin tey nag ci bu njëkk bi ñu amoon mbëgte ànd ci ak ko xam ni ràññee nañ ko macha allah ci Louga TV mu nekk fa chroniqueur muy Mouhamadou Moustapha Seck ñu bëri xam ko ci sang muy koo xam ni ay études en histoire la def ràññee nañ ko timit ci wàllu société civile ndax am na kuréel bu mu jiite danañ ci dellu siwaat ci kanam ci wàllu politique timit ràññee nañ ci taxawaayam kon Mouhamadou Moustapha Seck sang ñu bàyyi la nga nuyu nga nuyoo ñu mën a tàbbi ci waxtaan jërëjëf Pape euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay nuyu di di la di la sant di sant aussi waa Louga TV tàmbalee ko ci le directeur général Mbacke Mbodj ak équipe bi muy àndal ñëpp ñoom Ablaye Khadim di wane ne aussi mbégte mu rëy la di privilège bu rëy ngeen am idée émission bu bees tànn ma ma njëkke ci ñi ñi ciy njëkk jaar loolu rek c'est pas donné à tout le monde di wax ni aussi comme ni nga ko waxee incha allah fas na yéene joxe sunu gisin ci li nga xamante ni mooy réew mi ak li ko li koy yëngal lépp ci ci sur tous les plans benen bi moy itam suñuy jaar-jaar rek ni ngi ko waxe lepp luñ ci mëna léralal nit ñi ban gëna xam ki nekk seen kanam di wax moy kan bu soobé laaw da nañ ko gis inshallah allah. jërëjëf wa d'ailleurs foofu sax la ni euh, duggé ci émission bi say jaar-jaar. hmm ndax xeyna man ma tok tay di la présenter di wax yow yaay kan. hmm yow nga nga waxal ko sa bop da fay gëna nexe deg kan moy Mouhamadou Moustapha sek sang. waaw waaw Mouhamadou Moustapha sek sang. Euh, donga dara la bo xamanteni double din casquette de de d'intellectuel comme niñ koy waxe ndax jarna aussi ci école française mais fi ma bok bu may réclamer dama nan donga dara la parce que keur seigne abdou sek la dekk ci sante ba muy ko xamanteni kon dotu ko présenter xeyna bu laaje defal le généalogie sek gogou fum joge, depuis wouramadu ba ba muy terre ci louga parce que sama mam seigne abdou sek bayam banda sek ben la ci bayam ñu nan ko amar amar gogo aussi ben la ci bayam ñu nan ko demba almada demba almada momu wura madu yi la joge won xam nga maadi yu ba bi créer madu maadu yu amon na dom bu nan cheikhou amadou ba koku la dan andal cheikhou amadou bobu mo don euh, nekkandoom ban nan ko demba almada ndax da dan tag yoon saa salam ba tax ñaan almadhu ki tag demba almada Demba moomu nag bi Cheikh amadu daanoo moom bi mu fi jógee dafa jóge Wuramaadu yu ñëw Gànjool Gànjool googu la nekk di samp fa daaray alxuraan di ko jàngale ba ba am soxna su fa nekkoon su naan Kumba Aale kooku jubóog daara ja nekk ndey daara ja di leen fóotal ak di leen tibbali añ ba waa dëkk ba ni waa soxna si comme da doon dafa doon soxna kilifa bi mu fi jógee ba léegi kenn jëlu ko cam jubook sëriñu daara bi te ñoo lewantal seen diggante ñu may ko ko mu am ca benn doom benn doom boobu nag mooy Amar aamar moomu moo ñëw ba taw a gii taw a béy fa eh, dal ca dëkk ba borom dëkk ba gént pénc ma fees dell ak am ndox mu ni dëkk bi am na gan di nemmee ko ba fekk ko fi mu dal fekk mi ngeeg ñaari doom yoo xamante ni ay seex lañu woon sax muy faati mbuub ak ndimbe mbuub mu may ko doomam jooju ñu naan dumbe mbuub ndumbe mbuub moomu tey moo meññ maam band Seck mi jur sëñ Abdou Seck ndumbe moomu ba tey boo demee càllalaam da ko fekk cene ba cene ba googu lu xóot la donc dama koy faral di wax naan sekk gu raar laa goo xamante ni bu ma ko toppee dana naqaree bokk ak keneen incha allah. waaw donc ci jaar jaar euh, bien ci jaar jaar maa ngi judd 1967. octobre plus précisément 10 octobre 1967 euh, biñ demee ba ma am ñetti at sama jur wu góor alaaji seex Gay Seck maa ngi koy ñaanal fan wu gudd ak wér yóbbu ma daaray sëñ Isaa Sàmb bala ma fay ja bala ñu ma fay yóbbu sax Baay Cheikh Sàmb bu kër sëñ Baara la ñu njëkk a dox këram googu nekkoon kër sëñ Baara ab tool la woon mooy ci wetu jumaa ji léegi foofu yëpp dëkke nañ ko falan daan xëy ak tabanaanee fa nekkoon mu jëmbat fa ñebbe ak xaal dan daan jekki-jekki ba ci yàgg ñu mu watt ay xaal sax jox ñu bu nu wàccee yen ñu ko ñu ñëw booba man faama sekk ab laay eh, ba matuñu woon juróom-ñaari dongo foofu lan tàmbalee gannaaw gi laa ñëw kër sëñ Issa comme ni ma la ko waxee Baye Issa Samb fa laa mokkale lu bari sax ci ci alxuraan eh, gannaaw gi jaar naa sax Manaarul Huda vers les années 73 74 yàgguma fa nag parce que la laa dugg école artière yi à l'âge de 8 ans damaa yéex a dugg école mais yoy yep lu xóot la liko waral rek moy sama mam Abdou sek beugul won ab setam di jaxaso ak bi bi bim génnee adina février 74 nak sama papa ci lañu duggal dugal école maak sama benn sœur bu nane fama ñu bokk papa école artière yi gogo nak fa forger sama humanité bari na ñu ma fa bokkalon ay ay ay classe Malick Tall yàdd ñom ñi dama koy faral di wax ay ku nane Mor Mbay Sill commerçant bi ñoo ñep ñoo ak euh, ay Amadou Diop ak Mañang Fay ñoo ñëpp bokk nan ki banin nin accès ba sem 2 avec Souleymane Diop Gilles Diop bobu parce que à l'époque Dam Fay mo doon directeur ba mais dañoo amone ay jangale kat yu ay yu fa nekkone ku nan Ram Alsan Ba kooku moma yer sey ba sem 1 mujj nek inspecteur de la jeunesse SD sport day ñew sax lu ga souvent mais ku ñu marqué la quand même parce que pédagogie bin amone lu am solo la jaar nañ ci monsieur Samb aussi bi dekkone artères yi euh, C2 C2 googu nag sax amone na ci ben euh, fracture ci sama tank bo xamni tok na ay weer jàngiwu mais yàqul dara ci sama formation ba nin fa jógee CM2 euh, am entrant en sixième ak âge bi boo âgee dan la daan yóbbu canadien ci lañ ñu yóbbu canadien ñu ko daan wax CC Ablaye Fall à l'époque Modou Awa Balla la tuddoon euh, ci journée de parrainage ba lañ ko tuddee woon maa ngi fàttali ko sëñ Kosa sax moo ñëwoon ca cérémonie ba bi biñ koy tuddee sëñ Modou Awa Balla foofu nag itam am na nun fa nun fa ba nin amee suñ BFM ndax ñun ñooy première génération BFM DFM la woon biñ koy changé BFM ci la ñëw nag lycée Malick Sall lycée bi wax euh, xam nga historique am franco arabe la naroon a doon Baye Djili ñaar la ci tabaxoon Tamba ak Louga Iba Der avec l'école nouvelle par l'entremise de Sëñ ci leen ko ñaan ban def ko benn lycée ñu bari ja sëñ Saar sax moom sëñ Saama fi njëkk a nekk proviseur ñun nag ñooy xëy na deuxième ou troisième génération bi fi jaar mu muy lycée bu fees ak ay souvenir nag créé nañ fa English club bi ngay seen di lycée Malick Sall avec monsieur Mendy ak Ablaye la capitaine ñooñu à l'époque ñu Omar mbay ñoo ko créé woon euh, club arabe baa nga fa woon ay ñoom Muniru Seeg yooyu cénacle littéraire club ak ñoom Laman mbay ak Tandian doomu gouverneur Tandian bi nga doon seen waaw ak jeune en herbe nag bi mu ñëwee ñu présélectionné ñu ñu dem pour une première fois à deux semaines des des des éliminatoires ñu dajale euh, zone nord bi boole ci euh, lycée Malick Sy de Thiès ak lycée Demba Diop de Mbour par euh, si ironie de l'histoire sax ñun ñoo ndëkk njëkk a dóor à l'époque équipe bi gënoon a redoutable muy Prytanée militaire ñoo leen éliminé Saint-Louis ñu jël troisième ñu repêché leen ndax humiliation la woon nangul woon euh, à l'époque euh, Prytanée di toog ñu tasewaat dakaar da incha allah vidéo yi xam naa dinañ ko yaatal ndax mi ngi ma yor ba léegi foofu bi ñu tasee dakaar sax Martin Faye naan match bi moo nar a départage ñaari équipe yi parce que coow dafa amoon Saint-Louis après fofu nak ci lan dem ba quart de finale à l'époque avec Mounirou Sy eh, Djel Mokhtar Aydara bi nga xamni mo nek légui France tuddu sax Alexandre Aydara xeyna c'est une longue histoire ak euh, Cheikh Yirim Sek ak Aline Badre Dieye ñun ñoo doon équipe bu Louga bi ma doon le, le capitaine d'équipe lu ñu marqué la nak ban fa joggé nak ci lan am sun bac option arabe parce que ñun arabisant yi ma ngi fàttaliku euh, Omar Mbaye Mounirou si bari nan euh, maton nan une quinzaine de personnes dañu détaché jury bo xam euh, Ahmed Fall bu Saint-Louis lay doon ñu voyager par le train réquisition par le train la nuit accès. man ma dal keur sëñ Cheikh Mbacke gi nek fa foofu sax ma ciy saliwaal sëñ Khadim Mbacke mi fi ne ndax boba néegam lan ma jox Modou Fall bëkk néeg ba fa newoon néeg sëñ bi la ma jox may xey si wa di examen sax mu wékki cëwri bi mu takkon wékkal mako ni ma barke sëñ Cheikh Mbacke lool lepp luma ma marqué la biñ démé ba fofu nak ñun arabisants yi biñ joxé résultats yi wa Louga ñoo jël presque les 7 premiers postes du centre loolu luma marqué la quand même fa leen fa joggé jàll fa d'office ñu orienté ñu département histoire euh, fa lañ def sun DL1 DL2 très bien avec la deuxième année blanche ñu tudde woon ko l'année invalide parce que première année blanche moy 88 mhm. kooku sax amna na lu ca xew parce que ci lañ créé association d'iso bi nekkoon sanc ba avec une dynamisme bo xamanteni ken kenn mënu koo expliquer une dynamique bo xamanteni euh, ci lañ jëmbété won garab yi organiser ay cours de vacances euh, booba ak ay ñom Malik Tall Yade Ablaye Sall ay ñom euh, Pape Kébé Amadou Anta Samb ñom ñom ñëpp xamna naa ñi ngi ñuy buñ ñu dégloo dinañ xam lu ñu marqué la en 88 mais deuxième invalide bi nak ci la cassé fofu en année de licence département d'histoire xeyna na loolu lu xóot la par la suite dem na fi France dem fi Portugal yooyu yëpp c'est des aventures yo xamanteni ni yu ma tànte woon la mais ci la delsi nak nek euh, en freelance lidey dans le secteur privé Touba comme industrie de service avec un ami et frère Matar Sek bi nga xamanteni moko moo créé yoon ñu ubbiloon ma sax ben bureau fofu ci Bourguiba ci la euh, l'axe nord de bi nga xamni moo moo daanaka moo jaay ciment di Sahel ci axe nord bi ndax boobu Sococim da kaa occupé à 80 pour cent bi ma dikkee nag inversé la tendance ñu kii donc xëy na yooyu ay expérience yu xoot la par la suite nag dem naa fi institut des droits de l'homme et de la paix IDHP euh, pour am fa benn diplôme en citoyenneté jóge fa ci la dem inscrire en BBA pro euh, fële IAM pour def mastercard euh, avec le euh, système de validation des acquis option professionnelle da ngay fay rek xam nga mom du jeex mais loolu lépp lu marqué la mu nous ñu itam ci lu bari ba gis nga euh, politique bi sax fi ñu politique déparé 2000 parce que R21 de déparé ak Makan ñuy ci daan toog di discuter bi ma amee occasion le 26 janvier 2000 kermise de Amadou Nourou juuf yàlla na ko yàlla yërëm boo xam ne Ablaye Faye moo ko doxaloon audience bi foofu nag fa la sama engagement politique tàmbalee. dinañ incha allah ndax euh, xëy li ñu li fi nekk yëpp. doon mhm. nañ ay wax. way waay waay demee rek ponk par ponk. incha allah léegi nag ñu dugg ci euh, li nga xam ni mooy euh, sa taxawaay. ci mhm. wàllu société bi. Mhm. parce que gis nañ ni da ngay yëngu ci lu bëri di def ay action nga am sax benn euh, kuréel bu tudd Ardèche. Mhm. waa Ardèche ku ko tudd sa xel dana dem ci benn département bu nekk France. 07. waaw avec Aubenas ak Montélimar mais yow am na beneen. signification le lu ARDES. Mhm, oui lan la. waaw acronyme le euh, ARDES association pour la recherche et le développement de l'entraide culturelle humanitaire et écologique xam nga ñun ay apprentis poètes lan. Mhm. Euh, a def na 89 la njëkk a jël premier prix de poésie fi journée du parrain lycée Malik Sall de Louga euh, soleil relaté ko ak yépp yoy yépp ay archives la yo xam mi ngi fi mais ARDES bi maa ngi lay wax ni la année de licence la invalide bobu, la bàyyee woon dem France Ardèche googu foofu la ma inspiré parce que Fala la sama sœur nekkoon ak borom këram ñu organiser wu à ce que ma ñëw foofu euh, biñ fa jógee lien bobu, ma am ak localité bobu, sama mag bi mi xamni mo ni ma dem fa feebar tubaab yi fa dëkk seet si ko biñ toogee c'était des euh, administratifs directeur d'hôpital ko xamni employé domaine balané bin fa gay ñu ni ma lutax do créer ben association pour venir en aide à Louga parce que gis nan la vraiment fekk ci fofu ma décortiquer Ardèche Gogo. mais ñom bin demee sax dañoo créer ben association woo jour assemblée générale ba ni ma dañuy créer ben dañoo bëgg un nom fisé ma jox leen xaritoo bo gisé xaritoo bobu en 2004 ci leen fi njëkk indi ben conteneur de matériel médical hôpitalu Louga bi muy lu ñu marqué loo xamante ni moom it vraiment bokk na ci li ñu gën a lancé ci action humanitaire xëy na fa lañ jógee ba gis nga li ci jaar lépp ba tout récemment rek gis nga les îles Canaries am na bu buñ fa jëlee boo xam ni quatre maires ñoo maires yi ñoo ko séddoo muy Ngën Saar euh, Ngidi la Pété Warak ak euh, Kokki yooyu yëpp day wane ni ñun suñ action ñi ngi ci ca loolu mooy rek yin ci mën a lim recevoir nañ fi ay personnel médical yoo xamante ni ay stage fii am na fi ñu jóge woon fii dem yooyu yëpp looloo ko jur jo tey mi ngi continuer di dund xëy na nekk ci leneen loxo mais ardes moom ñoo ko téyel suñ bopp d'ailleurs euh, pour votre information sax mi ngi dugg euh, pour nek ben ONG parce que mi ngi ci circuit bi pour que nous puissions gëna yaatal possibilité yi nous mëna yaatal champ bi nga xamanteni ñing ko ci dans l'action humanitaire inshallah. mais ARDES dal loolu lay tekki région 07 la mais acronyme bi A bi moy association R bi pour la recherche D bi euh, et le développement E bi de l'entraide C bi culturel humanitaire H bi écologique man damay jouer ci ay jeux de mots bari na yoo fi gis muy dox yoo xamante ni daanaka maa génne tur yi mais yooyu yëpp doo ko kii da ngay par modestie da ngay am noo xamante ni moom ngay doxee parce que dama la koy wax toujours dama naan la autorité yi comprendre un posture bi nit ki am man lu ma am Louga ma ko gënal lu lu li may Lougay gënal gënal it Sénégal ma ko gënal pour mu dox parce que bu amee jàmm dox ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm incha allah léegi Ardèche bu weesoo yooyu nga lim action yi nga xam ne jot ngeen ko def conteneur yeeg donc hôpital beeg yu mel noonu. Mhm. ndax am na yeneen action yoo xam ni fës na yu ñu jàpp ne ci Ardèche la jógee. waaw nii présentement nii may wax ak yow benn ferme avicole boo xam ni centre polyvalent la di d'un financement de vingt sept mille euros bu jege les îles Canaries implanté nan ko fii ci Potou. boo jëmee ci yoonu taare bi di xaar mu équipement yi ñëw ñu man ko dox liñ ci jublu rek mooy fixer les jeunes candidats à l'émigration clandestine ak lutter contre la pauvreté endémique bi nga xam ni moo gangrené yenn yenn zone rurale yi wane ni un autre modèle est possible créer un centre polyvalent pour man former jigen ni ci transformation di len canaliser di former au crédit former len ci microfinance former len ci euh, euh, emballage former len ci commercialisation parce que moy toute la chaîne de valeur bi nga xamante t'ay moñu moo ñu ci pauvreté mm-hmm. buñ ko développer rek dana nek ci jamm mais est-ce que euh, engagement et le vision politique bu mel sympathie politique sax bu meuna dox problème mais inshallah, le ko gëna yaatal sax def tournage ngeen gis possible yu tout récemment recevoir na délégué FIFA une danoise qui elle est prête à may ñu euh, stade synthétique lay doon turbine ak itam benn central en énergie solaire bu mën a alimenter deux cent foyers mhm. donc yooyu yëpp euh, action humanitaire dafa yaatu mhm. te mën na sauver addina bi parce que coopération décentralisée bii ñuy wax nii mi ngi tàmbalee woon ci loolu fii dafa nekk le côté administratif mhm. mais association yi ak émigré yi pratiquement liñ indi ci réew mi kenn indiwu ko fi suñ ko formaliser ca jàppale leen mën nañu ya des fonds énormes yuñ mën a capter pour lutter contre l'émigration clandestine, la pauvreté, la, euh, la biodiversité, euh, comment dire, euh, l'écosystème bi dégradé ak yooyu yëpp ay fonds ngi ci yo xamanteni les accords de Kyoto yi ngay dégg man masna fi recevoir un ingénieur italien bo xamni mo créé won le Synapsis Group par l'entremise d'un ami Famara Sow ci l'a njëkk a dégg ni avec la le, le quota carbone man nañ cee capter ay ay ay fonds yo xamni ci la mëna gérer suñ dëkk yi tay 15 ans ou 20 ans après ñi ngi koy wax ba ci créer ay sommets en Europe donc nga xam kon tout est possible mais il suffit d'une dynamique euh, d'un engagement ak itam une connaissance approfondie mais malheureusement taf yëngal mo ñu yakal sun adina ñun ñep ba fi toll l'homme qu'il faut à la place qu'il faut duñ ko tek mo. loolu kon Ardèche euh, mën nañ japp ni amna fu mu fu mm-hmm. euh, ay ambition ah Inch'Allah. ambition yi d'abord, même pour nga passer ONG dañ lay laaj un programme quinquennal en joxe bo bok na ci li ma lay wax nonu lii ma limal lepp ci côté lutte contre la pauvreté fixation des potentiels immigrants clandestins xam nga euh, microcrédit nan lañ koy développer ba toute la chaîne de valeur man wu les énergies renouvelables nan les fexé ba nit ñi jot ci muy énergie solaire par exemple Energia euh, Sin Frontera mooy énergie sans frontière ben ONG espagnol la boo xam actuellement mi ngi toj la zone euh, mauritanienne mhm. Sénégal gi len beugone a njëkk ci lan moy man nañoo fexé ba mosquée yi école yi dispensaire yépp dox ci énergie solaire fi tol gis nga idée yi boo boo wax day créer déclic moo tax ñaare damay bëgg idée bu ñëw rek dang koy lancer pour képp ku ne ko xamante ne am nga ci possibilité nga xamni ni le monde est très ouvert par exemple fondation yi ngay seen Bill and Melina get mënoon nañ may ay scanner mais nan lañ koy capter ku koy yëngal kuy fexe ban jot ci foofu la problème bi ne ces mécanismes là existent mais nan lañ koy développer ba ñu mën a jariñu loolu mooy suñ problème malheureusement tout est politique dans ce pays nga xam ni looy yëngal ay pank politique a ngi fi yoo xam amuñu benn capacité mais danañ ko dikk pour yàq ko moo tax ñu bari sama maas nga xam ne dañuy bañ gis nga ci nii la ñuy doxee danañ ñu taxé nag de lu mais un autre monde est possible bu fekkente ni nit ñi am nan l'engagement qu'il faut ak tek l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mais il faut synergie ñu boole ko mu mën converger pour que ñu mën am un bon résultat Alors, la mhm. kon ñu fàttali ni mbokk yi teewlu yéen ngi suivre Guissine Guissine di jataay bu bes ci Louga TV tay ñu and ci ak euh, Mohamed Moustapha Seck ñu wax sang sang gannaaw Ardèche ñu dugg ci local yi mhm. ñun ñu ngi Louga dugal la ñuy yeewoo dugal la ñuy mhm. daal la dund mhm. ñu gis ne locale yi mujjoon am yow jiite woon nga ab liste mhm. waaw bëgg jiite dëkk bi maanaam mairie waaw lan nga jàpp ni moo tax waa Louga jox ñu loolu waaw xam nga election locale yi bokk naa ci ci entité bu faible nag quand même muy naataange askan wi bi Cheikh Alassane Sane jiite woon ak docteur Mohamed Diallo mais xam nga euh, visibilité dafa am solo ci nit ku am ay idée ba paré gëm dara motax tremplin lay am à tous instants bu faire une séance politique amna mo xam local législatif ou présidentiel il faut nga visible pour faire ci turbine mané a utiliser les outils qu'il faut pour jàllale sa communication wane ni un autre Louga est possible un autre Sénégal est possible comme Alou comme Alou ko depuis euh, muy nek jeune ñu dëkkandoo HLM bi nga xamante ni dem na ba euh, nit dal ne ma yow kat amna na ko malay lay wax ko rek dama ne ko no xamna ko motax biñ démé ba gisee dama ko ubil sama bop malheureusement mom entité bi mu yoroon sax mom téyewu maîtriser ndax docteur Mohamed Diallo biko yoron dafa mujj di ko chantage loolu lépp nëbb nañ ko ñun ba élection yi jàll parce que booba dem na gisoo temps d'antenne bi sax daaw ko utiliser ndax waa ji da koo téyel boppam di wax ay wax yu kenn xamul parce que politique a demee noonu mais ñun booba visibilité local bi lan soxla fexe nan ba nekk plénipotentiaire fexe ba nekk candidat bokk pour mën a bokk ci guute gi wax nag sunu programme euh, loolu ca yàlla xam na ni moyens yu modeste lan yoroon mais fexe nan ba yëngal ko ba am mille vingt 1026 voix ci commune bu mel ni Louga day wane ne buñ yoroon benn outil yore ay moyen financier comme nii ma gis gaa ñi liñ fi yëngal nga xam ni seen asakay budget yoruma ko woon yaakaar naa ni kon doon nañ jot réew mi bu fekkoon ñu teel a jóg aussi mais presque man nañ ni à cinq jours des élections rek ci lañ jóg ci lañ yëngal loolu ñu yëngal lépp mais rëcciwuñ ko parce que vraiment am nañ ci résultat boo xamante ni euh, ci coalition bi ñu bokkoon sax bokk nañ ci ñi ci gën résultat. donc euh, élection législative le local. non élection législative le ok mhm. mais du tee. mais bokk élection locale ak ak avec Amadou Gaydel. 2014 en 2014 c'est 221 la. Ah, coalition ah, Besduniac. à l'époque mon ami Cheikh Yirim Seck créé C221 à sa sortie de prison. c'était vraiment pour un ni il existe toujours. dégg na ko sax tout récemment mu nan mi ngi koy relancer bon xeyna non de li tax demul moy dem nan ba ala dernière minute mom mi don tedd liste bin ñu nit nit mom do figurer ci liste yi. ñu man ma géré ko parce que booba équipe nga yor do bëgg kasir am. ca booba ñi ngi ci une coalition bés du ñak ma ngi saluer de passage malik Dia mu amone engagement bo xamanteni xeyna amul expérience politique sax mais woné na ngor go xamanteni ca la ko jappé ba fi ñu tollu mais booba ñun Yirim bi démé ba ci biir fekk comme ci dëkk bi lan dëkk am suñuy nawle mënatuñu wona reculer heure yi presque bi waré waree liste yi ci la ni ma moom du mëna a sur les sur les listes ma géré sama équipe batay amna ci ko xamante sax daf naan ma ci la la fonké parce que sans froid bi nga am ak yoy ci lañ dem dans ak coalition bi bon xeyna amon nan quelques quelques conseils à travers xeyna euh, le niveau national mais malheureusement Louga moom jallalé wuñ ben malheureusement waaw xam nga xam nga Louga ñun buñ ciy wax dañuy nekk à l'aise parce que kirsi euh, suñu homme politique yooyu ngay wax yëpp am na luñ ci seede seen début bi nuy tàmbali am na ci ñoo xam sax jàppale lañ leen bi nuy tàmbali mais booba gëm ni Louga mën naa dox un autre Louga est possible rek moo taxoon ñuy dox mais boo xoolee xoolal rek fii ñu toog nii da ngay comprendre fii programme PACASEN la programme euh, d'amélioration des communes et agglomération di Sénégal PACASEN am na ay normes yoo xamante ne buñ ci doxoon tey création d'emploi la dana nekk benn liggéey de qualité boo xamante ni dana wuuteeg bii may gis nii ci pavage yi xëy na boo waxee li naan war mburu tuddub dëkk nag kii sa sans mor ba sa muus mhm. comme ni ko ni ko bommar la waxee am na ci loo xamante ni bu ko ñëpp bokkee ñëpp ci am droit de regard am na ci loo xamante ne bu fekkente ne yow administré nga l'administrateur war na la rendre compte loolu nag am nañ ci naqar bu rëy pour lan mooy Louga mënoon naa doxe neneen nu dul nii muy doxe tey parce que y a de dignes fils de luga même de la diaspora yoo xam ni Louga lan boog bëggoon a dugal seen loxo Louga malheureusement xajaluñ leen ci mbir mi ca fi mu toll boo defoon critique léegi gis nga émission tout récemment bi ñu def dimanche rek gis nga sortie bi li ci am lépp gannaaw gi tole boobu ndax jàpp nañ ni dañ leen a bañ wala fekk yow ki ngay waxal yaa ngi koy dimbali parce que ki lay mingi nan la yoon wi nga aw du wii awal yoon wi bo fi awoon Louga dana gëna dox xeyna man yak jàpp na ni kin ko denk le fait que ni muy absenté le fait que mu yor ministère de l'industrie des petites et moyennes entreprises ca feeñul ci Louga avec toute la chaîne de valeur que lolo lim mu mënoon développer transformation emballage commercialisation transport yoyep yëpp mënoon créer lo xamanteni tay man ak dynamique bin warona créer warona am ben animation politique Louga bo xamanteni ni fi mu toll boo laajoon kan moy député Euh, maire Louga bi dan naan da da kii ku ku gagné woon élection yi ku investir woon yooyu yëpp dañuy réer ci biir euh, bouillonnement la rek le temps din campagne électorale mais boo paree rôle kooko day réer alors que moom tey c'est un représentant du peuple waroon nay def mas naa ko ko tudde audience populaire local laa ko tudde woon nga xam ni lan lay doon mooy moom day dem vers les ASC dem vers les groupements féminins dajale leen laaj seeni doléance def ci ben memorandum bo xam sur cette base là mom lay démé session yi muy dem assemblée question ouverte et commission yépp ci lay liggéey mais malheureusement gis nga format bi ñu doxalo ba heure bi ak itam gis nga politique bi kenn do ko wax bu génné rek ay milliards génn ak détriment d' objectif ca malheureusement jeunes yi duñ voter jigéen ñi voter ñoo né ci lal basang groupement féminin yi la ñuy mobiliser sans conscience ba paré ñoo yow mi mas nga ma ci def ben remarque E école njàng booba tiyete correspondant din télé bi dang ne ma amoo lee seetlu ma ni la nga ne ma jigéen ñi rek ñoo ne ci rang yi loolu sax wax nga ko daal ne ma ragal naa ne tel candidat mooy gagné loolu vision la mais damay bëgg jeunes yi aussi ñu engage wu dans le monde parce que mu bañ a doon comme yii xew der bi tey xeex sànnentey yo yi mën naa ñàkk mais engagement citoyen et patriotique boo xamante ni tey dana sauver dëkk bi loolu laa soxla ci jeunes yi

du présence benn yoon boo koy effectivement ci assemblée nationale. oui oui yooyu yëpp jot nañu soppi. luma metté ngok motax motax ma xëccoog ñom sax ah. motax bi ngay wax man la élection législative la woon parce que boba mhm. il fallait coûte que coûte ma ma ma ma xëccoog ñoom mais malheureusement discours bi ni muy jallé mhm. vu les modestes moyens. Mhm. ak ñi ngay jamar lool. ak appareil d'état bi ñu tié loolu moy problème bi. motax toujours damay joy ni 2000. dama ko yàkkamtiwaat je suis nostalgique des années 2000 avec général Niang général Lamine Cissé or eh, eh, élection yu transparente noonu ak rajo privé yi nin ko doon relayer nga xam ne à 18 heures lépp leer format boobu tey Sénégal waru ci woon a réer malheureusement nous sommes en perdition ci côté boobu lu ma metti la nag quand même waaw ma ah, so dañ ko waroon a améliorer mais warul woon a am un recul démocratique comme tey lii nuy dund nii waaw loolu malheureusement lu may déployer la sang sang bel léegi maa ngi la dégg nga naan un autre luga est possible. Mhm. un autre Sénégal est possible. Mhm. man damay projeter wu touti dem luga 2040 wa fi ak fukki at ak juróom-ñaar. Mhm. tay yow bo amone pour tabax luga bob man gis-gis nga ci am. wa luga luga 2040 vision lay doon bo xamanteni tay moy luga Louga gii ñu yoroon Louga jamonoy Talla Moustapha Cissé Mansour Bouna Aminta Mbeng Ndiaye Mañang Fay ba ci Moustapha Diop mii Louga googu lan la jéggi ci étape muy benn Louga gi nga xamante ni sur le plan foncier li fi jaar ci malversation foncière maa ngi lay wax ni la jardin public yi rek war nañ ñoo rendre compte nee naa la centre d'épuration bii suñ gannaaw catastrophe la parce que moo maye prétexte ñu occuper espace yi alors que lii boulevard la woon Louga Gogo, mooy est-ce que Louga bu am vision projeté wu pour euh, amaler les générations futures seen ay réserve yu ñu leen fi wàccal ci équipement ci voirie ak Louga goo xamante aménagement bi day répondre aux normes parce que boo les quartier périphérique yi la fa xew nga xam ne taf yëngal la gis naa nag ñu ngi fay dugal temps yi ay taleeg xëy na xëy na xëy ci vision boobu mais beneen Louga dafa possible woon boo xamante ne coopération décentralisée diaspora bi les dignes fils de Louga nga xamante man nan dara ñingi fi ci expérience la yu nu yoo loo lu ñu expérimenter la xam ko mhm. donc Louga 2040 man na nek Louga go xamante tali yu toj du fi ne point d'eau yi di taw di ta bu tawé nga xamni man nga ko wàññi c'est les mêmes point d'eau zone yi don am ndox rek batay moy am ndox ana avaloir yi ana boulevard bi buy jeex mhm. côté gare Thier bu tawé bo démé ak dex lay don mhm. pourtant ñang fa def ben jet d'eau ana ban système lan waroon a mën a récupérer tey ndox moomu mu ne muy alimenter jet ba ba ingéniosité googu amul marché yoo xam ni de gré nga koy joxe xëy na wala du am contrôle parce que maa ngi la doon wax naan le panneau signalétique boobu nga xam ni moo war a wane ni kat fii travaux nangam la sax doo ko gis pratiquement fenn alors que da nga war a xam lu fay def financement bi fu mu jógee cabinet de contrôle bi ku ak nangam ak nangam ak nangam loolu citoyen bi moo ci am droit d'ailleurs li bi ngay wax ci suñ cursus politique ñi ngi le référendum de 2016 ci candidat bi la bokkoon bokkoon naa ci ñi doon défendre deuxième euh, candidature ñu yem fa ba tax bi troisième candidature di profiler à l'horizon sax bokkoon naa ci détracteurs yi ñu ko gën a décrier ci laa sax ma annoncé sama candidature aux élections présidentielles parce que dama ni bu fi troisième candidature naree am lu ma ci man danaa ko def ba du taxaw ca lor rek laa mënoon a am mooy sama engagement citoyen ca lu gëm la mais Louga daal jàppal ni horizon deux mille quarante mooy Louga goo xamante day feeñ ci eh, euh, établissement administratif yi nin ko defee dana laaj ab modification bu rëy ndax marché yi nin koy joxe dafa doy waar le voirie bi danañ ko xoolaat xoolal service technique communaux ak travaux publics bi muy am travaux hydrauliques ñetti kii yooyu rek daanaka ñoo yoroon Louga ce doon na dox usinage yi nga daan def ak euh, euh, li nga euh, construction mécanique yeeg ak anciens yi nekkoon ci service technique communaux ak travaux publics daanaka ñoo yoroon Louga mais tey xoolal Louga boo fi boo fi bëggoon a indi ay ab équipement logistique bu man bu la wan lii mi ngi régler dëkk bi sax amul mu feeñ ci assainissement feeñ ci voirie feeñ ci insalubrité malgré UGC ak programme yi am yëpp manon nañoo dox ñun ci yenen programme yo xamni dañuy intéresser les jeunes d'abord ak ASC yi ak groupement féminin yi bi moy ñu ñu am benn vision bu gën sori bi ñu am moy fu espace am rek wala fu patrimoine bâti de l'État am rek ñu déclassifier ko mu mujj ci loxo wala ñu lay gëmlo ay cœur de ville bu ñu wara a déplacer ab terrain parce que alors que tay ya warona aménager lolu wala wane ni kat infrastructure man dama doon gëm tey ñu ñu projeté wu ni Louga gi màgg war na am beneen commissariat de police war na am beneen beneen gendarme malgré am na compagnie de gendarmerie ak benn camp militaire bu fi indi mais sur le plan sécuritaire ba pare ñu ñu fexe ba aménagement concerté yooyu ñu koy am parce que le système zoning ci la ñuy aménager am réew mais mënoo luy équipement wala luy voirie classée nga def ci détournement d'objectif ba pare bëgg ni mën am vision tey terrain réservé yi fi amoon ak yooyu yëpp nga amatoo ci benn léegi fan la xale yooyu ñëw di euh, ëllëg tey waroon nañoo dox ci école yi nii tey ci suba dem naa école njàng malgré que bale nan kook yooyu yëpp xëy na abri provisoire amatu fa mais mënoon naa weesu tey format ba ma ko fekk tey maa ngi saliyel directeur Cheikh Camara sax gis naa vraiment waxtaan nañ fa waxtaan wu xóot ba wax ma ci partenariat yu fa war a indi euh, benn conteneur sax humanitaire yooyu yëpp day wane ni su nit ñi yëngoo un autre Louga est possible donc Louga horizon 2040 mooy Louga goo xamante ni dañuy impliquer de nouveaux politiciens yoo xamante ni ay technocrates la ñuy doon c'est des gens de la diaspora c'est des jeunes yoo xamante ni formé nañ leen ñu am ingéniosité mën a développé Louga mu bañ a doon bipolarisme bi am Louga rek nga xam ni ñaari nit ñoo yor seenub xaalis rek di taf yëngal bu élection yi jàllee ñu nekkaat di nelaw loolu moo war a jeex dafa war a nekk Louga goo xamante ni day am benn plan d'aménagement concerté ba pare am benn programme desenal quinquennal boo xamante ni dañ ciy impliqué les ASC même dans les euh, euh, euh, d'autres sont possibles au lieu que defi derby 34 ou 36 clubs Man nañoo jël nombre de jeunes yo xamante dañ dugal ci ci ci ci ci dëkk bi Ni jembati garab ni ni muy 3 mois yo bi encadré en don de sang xam organiser leen dana am fu mu feeñ ci dëkk bi école yi ñu préparé seen ouverture parce que jàppal ni juróom benn at yi ñu jëm yëpp euh, nawet bi day day sësanteeg ouverture des classes. sax daal nooraan. la nekk parce que nag euh, mënuñoo nangu nawetaan yoo xamante ne day dem ba école ubbi ñu naan la ñu ngi door a tàmbali phase de poulie yeeg jeexagul loolu aussi waxtaan nañ ci xëy na ci benn plateau télé sax ba am ci ay éclairage mais li gën daal mooy acteurs yi ci ne nan xam ni mën naa nekk neneen. ba pare Louga itam nan xam ni dans la diaspora ay doomu Louga ngi fi yoo xam ni bëgg nanoo dugal seen loxo ci Louga nan la ko lan ko ciy dugalee lan leen di lan leen di permettre ba ñoom seen partenaires yin am à travers le monde ak capacité financière bin am ak yooyu yëpp ñu yëngal ko ba Louga mën cee jariñu foofu la problème bi ne loolu nag du comme nii politiciens yi di doxee nga xam ni boo defee sorti sax dañuy génn ni sang sekk daf maa contrôle la Pape Diakhaté bëgg la déedéet dañoo waroon a concerté wu C'est les dignes fils de Louga yi une idée ñu avons créer une journée d'étude journée de réflexion autour de Louga une journée économique Ce yëpp maintenant ce à partir de là ils am un document de base pour xamante ni un ci tableau de bord ñu nga xam horizon 2040 dana feeñ fépp bu boobaa avec le solaire lii éclairage bi dana gën a yaatu comme ni mu am nii ca bañ a doon xëy na nin ko fooge ba pare ñu def des programmes yu sérieux parce que les programmes existent bel et bien mais nan lan lan koy doxalee foofu la problème bi ne ak kan lan koy jox ak ku kiy bénéficier wu loolu mooy problème bi. ni ko waxee nii sang amno na solo trop mais bu ku nekk toogee di ko wax rek wala ku nekk di ci xaar sa morom ragal na ni du sori yow lan mo ci fas nek sa taxaway ci dëkk bi ak ci réew waaw xam nga toujours amna collectif buy njëkk jog jóg. Mhm. ni dara par exemple élection locale yi ñu jëm léegi lay tambali mhm. li format bi ñu dal dafa wara jeex. dafa wara am des jeunes yu organiser wu dox sur la carte électorale ci statistiques yi dox ci problème yi nga xamni mo am ci quartier yi. Mhm. teug ben programme commun ba paré créer. ay ambassadeurs yoo xamante ne ay porte-voix lan ay porte-parole lan ñu véhiculer message bi ba pare ñu liggéey ci ëllëg nan la ñuy fexee ba loolu ñu matérialiser ko ci conscience nit ñi ba kenn ku ñu ne sa carte électeur bi ngay jóg boo jógee di dem du ñaari junni yu la jox wala ceebu yàpp yu ñu togg mooy tax nga jox ko wala du farfarloo déedéet da nga naan programme bii ma xale yi indil kat moo tax tey danaa jël sama carte may leen ko mais loolu léegi lay tàmbali. boo euh parti amone amoon euh, historique yi amone bi di disparaître ay ay euh, populistes yi ah, ah, gis nga France Espagne ak yoy gis nga Macron la France en marche ak yoy yëpp gis nga euh, gis nga Front National daño mujj très bien lo yëpp ay ki la yo xamante dynamique bu bees la boy teug mu feeñ ci discours bi nak am des porte-voix parce que kenn rek mënu ko animer dafa war a nekk toute une équipe mu am sinergi synergie bo xamanteni ni seen idée day converger pour que mu meuna am résultat mais lolu faaw muy ñu dara ño xamanteni suñu joggé di yëngutoot kèn du leen wo euh, Dakar recevoir leen audience jox leen 2 millions seen bop toj comme ni mu démé ni wala kèn du leen la kat gis na fi nga génn pour nga koy sagal nit man je n'ai aucun problème ak homme politique bu mu ci doon ci Louga amul kèn ku ci ne la mën naa am ak mom problème mais Louga par contre moy sama problème. mooy nan la ñuy fexe ba format bii ñuy dox ñu génn ci mooy format bipolarisme boo xam ne entre ñaari nit rek nga xam ne bu duggee malheureusement buñ jógee ci élection yi dootoo ci gis kenn sax loolu mooy parce que li ko waral it mooy ñooñu amuñu engagement patriotique et citoyen ñooñu ay daw làqu lan yoo xamante ne xëy na li leen naqari wala la ñuy bañal seen bopp moo tax ñu engagé wu politiquement malheureusement loolu bu amee rek faussé na le le jeu dès le départ. yow ban engagement ngay jël tey yow ci kanam Louga Toit waaye mooy bu yàlla defoon tey ma ma yor Louga man danaa leen wan ni Louga goo xamante ni ay jeunes yu dynamique yu engagé wu Louga boo xamante ni économie dormante la am boo xamante ni mën nañ koo développé Louga boo xamante ni mën nañ ko yee Louga boo xamante ni diasporaam manal na ko lu ne ca dama ci xam lu bari ndax voyager na à travers le monde gis na toute la diaspora lougatoise dynamique bobu tay mom la ñuy yee Louga bo xamante c'est digne fils ñi ngi dans les sphères de l'administration nga xamni ñoñu manal nan tay tey Louga dara mais nan la ñuy fédérer foofu foofu la problème bi ne ce n'est pas créer des slogans pour soutenir un parti au pouvoir wala pour euh, làqu wala pour pour xeex lu la naqari déedéet slogan bi tey Louga ci war a bénéficier wu ça doit tourner autour d'un programme économique boo fàttali ko mas nañ cee def benn émission ca rajo Dunia gu njëkk ga quelle idée de développement pour Louga booba sax bin paree ndeysaan sëñ Aliou mbay dafa gaare otoom laaj ki doon wax ma ne ko man la mu daal di dem won ma benn système boo xamante ne moom la installé ca toolam ba ni ma idée yu mel nii laa bëgguñu koy développé système boobu sax dem naa ba par la suite ma am ci man beneen amélioration mais gisaguma ko sax pour wax ko ko ca loola xoola ni mu yàggee léegi loolu mooy li fi mën a ne comme ni nga ko waxee beneen Louga mën naa ne mais Louga boo xamante ni ñi koy dox dañuy jóg léegi am engagement citoyen boo xamante ni dañuy fédérer toutes ces forces la pour que ñu mën a tase et non pas ñoo xamante ni sax maa la ëpp kéeg moyen maa la gën a xam tel leader yooyu dafa war a jeex waaw dafa war a lu ñun ñu doy programme bii am ñu réfléchir ci yu le cœur de ville bii ñuy wax am nañ ci programme ak yeneen ak yeneen yoo xam àndoon nañ ay nit yu ni marché c'est toute une organisation boo xamante impliquer tous les fils de Louga kenn ku ci ne malheureusement une vingtaine de minutes euh, moñu déssé li douf ci nak bi yëpp xajul ci ci cin bi. légui dañuy dugg ci niveau national bi rek. Mm. xawa accélérer Sénégal octobre 2023.. bon fi ak euh, ñeenti weer ci kanam nee élection présidentielle moñuy xaar. élection yo xamni ni nañ président sortant bi Macky Sall du ci bok Ousmane Sonko timit bëgg nañ ko xagn ñi ngi def le tout pour mu bañ ci bok malgré que ay avocats ñu ngi naan ña ngay def ay recours pour fexe nuñ ci bokke en naa ñu xool fu affaire yi di mujj. Mhm. noonu la situation bi tegee ci jamono jooju nee nañ lu mat ñaar téeméeri doomu Sénégal ñu ngay retiré ay fiches naa ñu dañoo bëgg a réew mi ban jàngat nga ciy def. waaw xam nga ñun wax. naa la ni la li ma gën a naqari mooy au sortir des élections de 2000 avec général Niang général Lamine Cissé alternance am ñu gagné Abdou Diouf Ablaye euh, gagné ko Abdou Diouf woo ko téléphone félicité ko gis nga déclic bobu mom la Sénégal warul wona raté tay douze ans après ak li fi xew lépp avec ni Ablaye Wad doon forcer troisième candidature malgré que amu ci won droit mais xam nga homme euh, homme de droit la bo xamanteni utiliser euh, toujours droit day am frontière ak bunt mooy comme lii ñu xew nii rek avec le ministre de la justice bi ma ko dégloo bërki démb moom buñ ko ubbilee bunt da koy tëj ubbi frontière parce que droit loolu la malheureusement droit du diine mhm. bu doon diine tey aayab alxuraan bu strict lay doon akub hadis mhm. mais bu dee interpretation bu dee yow dem nga ba naan ma ñooñuy wax maa leen gën a agressé en droit je suis maa leen gën a gratté loola yàqu na tay texte bi euh, l'esprit et la lettre la won tay nga xamanté waaw dootu ay affaire gradé fofu lay wax ni la lama don wax tay la ko gëna wax li taxone ma bëggone nek candidat moy boba le président sortant muy Macky Sall amul droit à une troisième candidature sax bay am troisième mandat lutax 2016 bi ni def les réformes euh, constitutionnelles euh, référendum bi ni nga ko 15 points yooyu benn bi c'était pour limiter les deux mandats discours bam ci tenir lam ca wax livre bam ci bind lolu ci yoon warna xamni war ko may sax muy présenter ou bay prétendre à un troisième mandat lolu bokk muy un jeune bo xamni ni après les indépendances tay mo waroon a sauver Sénégal moy da leen a légué ay institution yo xamni kenn du ci taf dara malheureusement gis nga li ñuy doxee gis nga dossier yi fi xew nga xam ni femme bi gënoon a valable ci Sénégal ci côté boobu muy Nafi Ngom Keïta gis nga dañ koo mujj diaboliser ba jëlee ko fa alors que amoon na dossier yu mu def enquête ban épinglé une vingtaine de personnalités tey ñooñu tey ci kaso bi lan waroon a nekk heure bii xoola fond Covid yi gis nga li xew yële danimaa ci teg sama conco yii dafa tànqam le Sénégal kon kooku déception boobu laa am ci moom ba buñ euh, bëggoon troisième mandat sax ci ñuy taxaw ni du mën a nekk laay am moo tax li ñuy ñaan mooy des élections libres inclusives mooy ñëpp bokk la Abdou Diouf waxoon jàkka jàngoo na parce que moom amul droit troisième mandat mais amul droit xañ keneen ku waroon de prétendre troisième mandat Si vous interprétez buñ ko interprété fii dan force à la loi c'est la justice qui est, man ku ci ne am interprétation Ousmane Sonko au sortir des élections présidentielles dafa génn nek en deuxième posture

une jeunesse boo xamante ni tey ñoom ñëpp ñi ngi koy topp mais est-ce que kooku dañ koy xañ élection yooyu bu fekkente ni il représente une France de la population alors que boo demee am na fi ay Zimbabwe foo xam ne ab chanteur sax defe naa moo moo porté woon loolu ñu mujj xañ ko ak yeneen c'est-à-dire ñun tey recul démocratique boobu lañ waroon a éviter suñu bopp dañoo waroon a organiser ay élections yoo xam ni des indépendants ca c'est possible un ministre de l'intérieur wal ñoo xamante ni bokkuñu ci parti au pouvoir wala soutenir au pouvoir parce que appareil d'État, parti bi nga xamante au pouvoir il ne waru pas utiliser war nañ protéger le président de la République jox ko institution yi ba mu gouverner mais waruñu utiliser le parti malheureusement c'est le malheureusement loolay problème bi amalgame bi très bien amalgame bi mooy bo kenn xamatul luy politique ak luy administration loolu mooy amalgame bi malheureusement ñu mel ni ñun boo leen bëggee léere ci dañuy parce que euh, tey fi ñu waroon a institution de la république yi dafa waroon a indépendante nekk lépp service yii parapublic ak yooyu yëpp ak commandement très bien commandement territorial ñëpp ci war a bokk yam par exemple benn parti politique warul di meeting ak a def tournée ñuy tànc beneen ni ko doo kéeg yooyu la woon tey mais loolu il faut ñu am benn indépendance même l' indépendance de la justice qui a été décriée tey amoon na tey ñoo xam ne buñ fa nekkoon coow loolu du am parce que ñoom xamante nañ seen biir am na ci kii boo déglu ku mel ni Souleymane ko muy wax ak i aaye alxuraanam sa yaram day daw dalay wan ni kon d'autres magistrats yu intègre yu mën a yor loolu mi ngi fi mais nan la ñuy waxtaane seen biir ba jonction boobu am parce que bu fekkente ni ñëpp ngi leen di joxañ rek yaa problème suñ dee joxañ ab hôpital ndax la fay dee bari na ndax soins primaires yi amul urgence doxul yaa un problème suñ dee joxañ magistrats yi ndax xëy na ni ñuy attee wala ni ñuy doxalee tegewul fa nit ñi bëgg yaa problème Sauf lan waroon régler le problème l'indépendance de la justice à créer des des des instances indépendantes yu organiser des élections libres transparentes et démocratiques buñ ko défend rek on y gagnera malheureusement. Au xew Sénégal il y a une lutte à mort entre le système et l'antisystème. L'ol la man nag ci antisystème bi laa bokk de boo gisee may wax nii. Hein. ah waaw ci laa bokk de xam nga luy anti-système, li ma seen nii. malversation financière. ay dossiers yoo xamante ni lu ne xew nga très bien ca loolu laa tudde man waaw système boobu moom ku may wër ba yeboo wër ma ci anti système ba parce que man as gor laa soo xam ne li ma xaj mooy loo xamante ni tey ñëpp ko bokk nan ko séddoo li may wax toujours Momar Samb bu RTS réew mi kenn du ko pàccoo dañ koy pencoo pencoo googu moo des mooy fexe ba ñëpp yem le juste équilibre foofu lan am suñ problème ñun. mais mom dafa melni mom euh, ah dafa rallier camp présidentiel xam nga xam nga lu Ablaye wad waxone xaalis day lo nit am privilège yo xam buñ la ko joxé rek du nga faté fi nga fi nga nekkoon malheureusement dalul ñëpp nak dalul ñëpp malheureusement. sang yaa wax sànq ay élections libres démocratiques. inclusives transparentes mais ndax japp nga ni fi ñu toll ak euh, ni contexte bi ñu nekk nii buñ ci démé ci élection. Mm. fek ñenti weer. dana mën a nekk élection yu sérieuse yu normal ak yu crédible. élection yu sérieuse fenn rek lay mën a sérieuse jeunes yeeg yi ñëpp jóg gàddu seen carte dem voté li ki ñu war a kenn bañ leen a orienté di leen corrompre kooku benn la. beneen bi mooy élection yu libre transparente mënoo ko am lu dul organe ya koy organiser dun far parti au pouvoir da ngay créer des indépendants comme général ñaak général Lamine Cissé yàlla na leen yàlla yërëm ba pare daal di créer nag processus bu tax lépp leer. xam nan ñaata bureau de vote moo am 15000 ou 13000 et quelques ñu fexe ba chaque parti ñu représenté la yaa ngi wax sànq ci parrainage bi bu fekkonte ne tey nii ñu ko defee nii ay mandataires ñëw rek récupérer pour seen candidat. Mhm. mais waxagun ba tey candidat yi am nan. Mhm. bu leen kon dañ ko allié woon ak dépôt caution. Mhm. filtre la woon boo xam ne tey dana dana changé lu bari. mais nii ñu ko libéré nii. boo seetloo pléthore mais nag bu ñu demee au finish di nga xam ne ay kandida fantoche a ci ak i candidat télécentre yoo xam am na ñoo xam sax dañ leen a yabal pour pour semer la zizanie pour ñu mën a bokk mais bon waaw dana parce que li fi jàllit mooy bi élection yi jàllee dégg nga bi dialogue bi ak président Macky Sall bi muy wax dane am na candidat yoo xam ne sax maa leen financé mhm. daa ba tudd maam booy jaw sax mhm. am nga xam ne kon kon kon leneen mën na ne waaye incha allah na sa xol sedd li ma seen nii mhm. yaay nouvelle dynamique y a un nouveau engagement citoyen boo xamante ni Sénégal par A ou par B dana am transition boo xam ni dana ko jéggi da koy jéggi moom moom moom espérons que dana dana noon sur le plan positif incha allah waaw dafa am baat yoo souvent da ngay dégg ci ñi ñu jiite di ko wax lu mel ne état de droit Sénégal réew justice la démocratie bonne gouvernance liberté mais baat yi ndax lan lan mën a tekki ci Sénégal gi ñu yeewoo waaw mais xam nga état de droit mooy état bu ñu régler respecter ay institution ñu koy appliquer ca ñañu administrer mu tege ci yoon ñu bañ a leese kenn looloy état de droit dégg nga euh, bonne gouvernance day fekk yow mi ñu fal nga war a mën a tege ci yoon ba kenn du la critiquer comme modèle Omar Ibnul Abdul Aziz bi nuy faral di joxe nga xam ni soxlaaloo lenn euh, bërki démb rek am na ku may nettali nijaayam

ñi nuy tànn mooy ña gën a xajam ca ñan waroon a tànn mhm. seeni collègue décrier leen mhm. nga am ñu gën loolu am modèle boo leen mën a tànne parce que profil profilage am na nun ko mën a defee mhm. soo demee ci ñi nga xam ni ñooy seeni ñooñ ni leen seetal ñu ci yéen set seen biir ku gën a jub bu mm-hmm. boobaa tey kenn du critiquer conseil constitutionnel kenn du critiquer ab magistrat kenn du mm-hmm. critiquer keneen ak keneen ak faites mm-hmm. bu un préfet de la région ou un gouverneur day permettre parti au pouvoir lu ko neex mu organiser ko ca bu opposition dukkee mu am laywum ko wutal tey problème de am bu fekkente ni un ministre de la république day mën taxe nit de forces occultes ou de terroristes alors que mënu koo justifier le problème boobu day am léegi bu fekkente ni nag ñi am ñoom seen organisation personnel ñoo mm. lal lu tax mm. seen bayre gën a jëm kaw mm. seen mbooloo di yokku ñooñu duñ ci dara danoo am le bon discours bi nit ñi dégg malheureusement fa loolu moo dal ki ngay wax ni ñoom Ousmane Sonko Pastef mooy bin fa jógee système bin lal nemmeeku tuur ak ay vacances euh, patriotiques ak yooyu ñu lal nit ñaa ca gis seen bopp beneen bi mooy le leader discours am ay ñu sàcc la décret mhm. ay détournement mhm. ay contrat pétrole mhm. ay 94 milliards yan décrier aussi jeunes yi dañ ci soxla seen bop ñu dem ba ci biir nag euh, rapport ofna gi joxe jox ko raison ñu dem ba ci biir fond Covid yi euh, liñ ci xewal euh, jox ko raison mu dem ba xëy na euh, amatuñ pexe. Ah. ñu kii mais interprétation de du droit gogo ah. moi il ma gën a parce que d'éminents professeur universitaire dañ cee ah. wax. est-ce que joxuñu lu tax joxuñu leen crédit. lu un seul ministre de la justice rek. moom moi toog war a interpréter le droit. wa ña ko jàngaloon nag. Serigne Diop sa daxte wala keneen ak keneen. ñam jàngaloon toog di ko weddi donc le le droit c'est un débat qui ne mhm. finit jamais. Mhm. parce que buntu le ak parenthèse sun teje buntu nga ubbi parenthèse. te itam tok di bàkku ci euh, agrégat go am wala grade bo ëpp le nit. Mhm. lola de droit xam nga droit dëgg mooy lan. mooy maandu gu tax liñ la dénk. yep gis parce que droit existé na bien avant euh, plus de 700 articles de la constitution romaine. Ben 30 arti 30 versets du Coran résumé d'après avons Der malheureusement gis nga ñun danoo Nous lepp mhm. ñu xajam ñi ñoo dikk yor seenu ñi nga xamanteni sax ñoo amone capacité yoom seenu mandu lan lal mhm. ca malheureusement am rew du doxé noonu mhm. dañ ko warona waxtane malheureusement man luma gradé gradé gradé ma tok diko waxal sama bop kuma dégg war ma xeeb dama wara bayyi a keneen wax ko ci jëf da nga wara jëf ban la koy taggé lolu malheureusement gis nga li ñuy dal ni malheureusement sang bu ñu sukkandikoo ci ci Sénégal tay lan lañ mëna japp jàpp mom moy le Sénégal de tes rêves fi ñu war jublu waaw xam nga Sénégal gu gaz nara feñ Mhm. gaz sax feeñoon na fi ba paré mhm. mais Sénégal go xamné réserve gaz yi biñ ko tuddé da ngay yuuxu Sénégal go xamante tay pétrole nar na fee feeñ ñu lay wax bloc offshore ak onshore ak yooyu mhm. ci pétrole sax wax nañ ni même vers les années 56 amon amoon na fi maa ngi fàttali ko bàyyi jili sax fi ci daw pootu rek doon na fa explorer pétrole ban trouvé woon à l'époque de Abdou Diouf xëy dafa jallo Sénégal go xamante tay euh jeune yépp a 70% des jeunes la am très bien Le Sénégal googu tey lan waroon a préparer ndax avec le pétrole le gaz et l'or de Sabodala sax. ak ñoom zircon ak zircon yooyu. nantir Sénégal. Mhm. ci fonds souverain. Mhm. ci ay programme yoo xam ne bépp doomu sénégalais da nga ci gis sa 000 100000 mhm. logements sociaux yi ñu anamu gis nga programme la won bo sur le plan social HLM yi tay uh-huh. mo doon continuer mais HLM Jambour yi 82 ci la fi HLM gëjee 82 uh-huh. ak légui 41 uh-huh. ans après est-ce que yenen HLM taxaw na fi yooyu fofu lan raté c'est-à-dire les les slogans sont trop politiques les visions trop limitées malheureusement loolu moy problème mais Sénégal mën na possible bu fekkente ne tay un programme social inclusif bo xamante day sóoraale le social sur les générations futures mhm. tenir en compte mhm. mutualité boobu nga l'inclusivité mhm. Sénégal est mais pas avec ces personnes là d'autres Sénégalais ah il faut changer de cap il faut des Sénégalais engagés de véritables technocrates Il mentalité yu gëm nouveau type de Sénégalais quoi ñu doon wax léegi la waroon possible mooy gëm seen ngor Sénégalais ni lu lewul du law ñu yem ci li

ak ku indi programme bu tax mu ñu ànd changer réew mi nii nuy doxe boo dikkee sañ na maa ak yow mhm. duma ni opposant la parce que ñëpp bak nan ma am na ñu ma sax Ousmane Sonko la faral sañ sañ nan ko mhm. parce que sama sama ligne bi xol ci discours bi mhm. moom lañ japp ni fekk Sénégal guy jag moma intéressé donc Sénégal man na possible février 2024 forcément transition dina am man ma la wax lolu mo xam ci ban bor lay mënti joggé mais force changement day am ndax dynamique bi ak engagement bi citoyen yi am mhm. lolu mo koy changer surtout la diaspora nga xamni ben coup de fil man na contrôler tout un électorat ci ben keur mhm. lolu nan ko bayyi xel mhm. léegi mu dess nak yan outil lañuy organiser élection yoyu ak yan candidat ñoy dem xeyna filtre bi dana ko leeral mais jàppal ni dal tout est possible dans ce pays man nak lama la waxoon Sénégal a ma ñor Louga ma ñor un programme buma ma gis sama bop pour ñu mëna dox ci mutualité sociale pour ñu dox ci inclusivité économique pour nous nous avons dox liberté pour consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons développer des idées pour faire des day sportifs, ci club sportif faire un ci marché faire un ci mbedd environnement sur le plan social et humanitaire aussi nous lan capter à travers le monde par la coopération décentralisée sur le waqf ak yooyu yooyu mooy mooy idée yi mais dootul bipolarisme bii ñu créé nga xam ni de manière local ñaari nit a fi nekk lakkal ñu witt nag di pasar pasare alal ca warul nekk affaire nit affaire programme la war a doon ak affaire équipe d'ailleurs loolu sax man ci laay woo jeunes yi ñu ñëw autour du synergie créer benn équipe boo xamante ni dañuy wane ni un autre Sénégal est possible un autre Louga est possible loolu daal mooy sama leitmotiv jërëjëf Mouhamadou Moustapha Seck ñu koy wax euh, sang moom lan dalaloon tey ci suñu jataay bu njëkk ci émission gisiin comme niñ leen ko waxee ci njalbeen gi rek gisiin fas yéene ànd ak yéen ba bu jot ci Louga TV ñu ngi leen di sant bu baax di leen euh, gërëm ci teewlu bi ñu amoon mbégte véritablement ànd ci ak yéen ñuy ñaan euh, borom bi mu may ñu fekkee ak kàttan ba ñu am yeneen occasion ñu dellu siwaat fii ñu àndoon nag euh, ci côté technique bi Khadim Mbodj Ablaye Lo ak euh, Mbacke Mbodj ñu leen di sant bu baax di leen gërëm sang merci encore une fois et à jërëjëf